yàlla saafara jàngoro yi tey mbas mi ci réew mi yàlla ko fi yàlla jële jële ko ci àdduna bi yépp te képp koo xamante ni dalagu yàlla la li ci yàlla dégg doy ku mu dal yàlla na ko yàlla saafara koo xamante ni faatu nga ci yàlla nga teere yi àjjana tey jullit ci barke seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla jubal suñuy njiit moo xam ñi jiite diine ji wala ñi jiite penc mi yàlla def ci ñoom maanu jub ragal yàlla ak yërmande ci askan wi ànd ngir jëriñ askan wi bañ a kompaloo ngir di jëriñoo askan wi yal na yàlla eh, yërëmal ñu suñuy way dawlu suñu way yi jiitu bokk yi jiitu wala yi jiitu ak bokk jullit yépp yal yàlla yéega leen ci barsax sayyidina Muhammad seen bàmmeel yàlla doon xarukaay àjjana allahumma la tahrimna ajrahum wala taftinna baadahum yàlla na yàlla sàmmal suñu diini suñu ngor ak suñu bokk yàlla bu mu xajam àdduna yàlla bu mu xajam àllaaxira ci barke sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu yàlla defal jàmm te liy tax nit di am jàmm yàlla nañu ci yàlla yàlla nañu yàlla defal jàmm waaye li tax jullit di am jàmm yàlla nañu ci yàlla defal jàmm waaye li tax am jàmm yàlla nañu ko defee ñu waxoon nekkoon ci cheytaane waxoon ni fitna yépp cheytaane la waaye li ko li tax cheytaane man ko it sunu bakkan la loolu il ñu xam fitna yépp cheytaane la waaw ndax yéene wuñu jàmm fii yéene wuñu jàmm fële waaye li tax nag mu man ko toujours suñu bakkan la yàlla daf ñuy wax ni yaa dina alladina amanu udxulu fi silmi kaffa wala tattabiu xutuwaati sheytaan innahu lakum aduwwun mubin yàlla nee na yéen ñi ma gëm yéen ñi ma gëm dama leen di am dama leen di wax mooy ànd leen yéen ñépp ànd leen yéen ñëpp ngeen dimbalante nekk ay jullit yàlla nee na loolu la fexe leen ko bu ngeen buggee mucc si ànd leen yéen ñëpp ngeen jàppalante ñéem a nekk jullit yaa ayyuhal lazina aamanu udxulu fi silmi kaafa ànd leen yéen ñëpp ngeen dimbalante nekk ay jullit nee na suñu problème yëpp mooy jullit jullit lu nañu ànd jàppalante jéem a nekk ay jullit jéem a nekk jullit nag mooy yàlla dafa am lu ñu sant nañ ci ne yàlla dafa am lu ñu tere nañ ci nekk wala tattabiu xutuwaat cheytaan te na ngeen bàyyi maanaam cheytaan nekk yëfam waaw bu leen kooj càppat ci bii ndog ci bii déedéet yow jullit nga nekkal ci lislaam tënkul ci lislaam waaw la leen islam sant dee ko def lam la tere bàyyi ko yoonu seytaane la fa ne ak ña fa ne balee nag seen yoon ak la ñu moom la Sëñ Tuubaa mosoon dégg naa ñu ni eh, dafa mosoon toog ci néeg taalibe yi nekk ci biti ba ci ak toog bu saa yu toogee rek dégg aouzu billahi mina seytaane yi aouzu billahi yëf yi bu ko paree loolu mu génne saa bàyyi leen jàmbur bi yéen nekk ci yëfam rek bu ngeen di bàyyi yëfam muy bàyyi seen yëf muy wax ju riche seetaane yaa koy xajal rek boo ko xajalul du xaj kon bu ko defee ñu bàyyi ci xel léegi nag arme yi ñuy xeex seetaane bokk na ci di muslu ci seetaane ndax yàlla moo ñu ko digal a'uuzu billahi mina sheytaani rajim mooy yàlla teel ma sa xaj bi yàlla maa ngi laqatu ci sa ginnaaw ba mujj sa xaj bi maanaam loolu moom lu dee ko faral booy julli dee ko wax lépp looy def te bëgg ci barke bëgg ci eh, ndam bëgg ci tiyaaba ko mag na nga ko wax sa ko sow du ala mu mënti doon auzu billahi yàlla teel ma xaj bi teel ma góor si ba bu ci sa ginnaaw bu mucc ci góor si waaw loolu moom na ko na na na ko jullit yëpp farlu bi ci des góorgóorlu di yor jàpp gis nga jamono ji na bu kenn di taxawaal te yoroo jàpp wóorul foo toll day yor jàpp alquran ku ko mënul woon jàngi ko ni ñu gën a fonkaat daara yi man dama gis ni sax daara di leen singli pour dooleel dooleel seytaane la loolu gis naa loolu ni ñu singlee daara yi njàngum alquran mi ni ñu ko singlee pour gën a dooleel parce que li seytaane gën a bañ mooy alquran alquran moo tax ku ko man ñaari saar yi nang boo ko mënee jàng jàng ko tuur ko sa kër boo ko mënul jàngalu ko ñu ëf ko ci ndox ko tuur ko sa kër mooy baqara al imran waaw ku ko mën a jàngal sa bopp jël ko jàng ko ci ndox tuur ko sa kër ko mënul wutal ku la jàngal def ci ndox nga tuur fi ne il faut ñu il faut bopp ci seetaane li ma leen di wax waaw seetaane fi nekk lépp moo koy def yàq na kër yi sëy yi doxatul doomu bàyyi kenn jubootul moom la dëkkandoo yi kenn jubootul jàkka joo dem wala nangam ñëpp ay noon fi mu ne noonoo moom gën a yomb xaritoo lépp mooma dañuy jub ci suñu bopp waaw loolu nag li ci dimbali mooy kii ñu bàyyi ko xel tey contrôler nopp bépp loo xam ne amul la njariñ jarul nga ci taqal sa nopp loo xam ne amul njariñ jarul ci nga ci sonal say bët lépp loo xam ni amul njariñ jarul nga ci sonal saw làmmiñ yii nañ koy contrôler bu baax a baax a baax parce que ay ay manafis la pour seytaane di am doole ci ñun bi ci des sa lekk de lekk pour pour pour dund waaye bul dund pour lekk waaw li ngay lekk xoolal ngii rek na naa lekk loo xam ne naa mën a taxaw ba mën a jaamu yàlla bu ko defee nañ koy contrôler ngir mën a wàññi doole seetaane ci ñun waaw ayatul kursi ñëpp nañ ci jàng trois cent treize réew mi jaxasoo nañ ci jàng bu nekk trois cent ndax bokk na ci seetaane gën a ragal ayatul kursi seytaane ci boppam moo ne dama koo ragal moo ko waxal moom yonent bi daa xamoon fu muy denc ay azaka da ko doon denc Abu Hurayra ñun di ko dencal suñ koy waxee azaka mu ngi xaw Abu Hurayra saa ñëwee fekk ay saako yu manqué mu ne yaa Rasulallah man de dina ma jaaxal man fi may denc azaka yi kenn fa dugg te saa yu ñu ko fekk fa lu manqué mu ko ah, mu ne ko ah ngóor si la de mu ko ngóor si mu ne ko moo koy jël waaye dinaa jox loo xam ni soo ko waxee di nga ko mos a jàpp si mu wax ko baat yi Abu Hurayra wax ko ñëw fekk seytaane muy jël saako yi mu jàpp ko ni ko yow nag nekkati lii li ma doon dal yépp yow yaa ma ko teg léegi dinaa la yóbbu ci yonente seytaane ni ko teg maa baal jaaxle doom ak njaboot moo tax ma ñëw fi di jël laal bi mais soo ma bàyyi dootu fi ñëwaat mu bàyyi ko mu dem ñëw ni yonent bi ah man de ngóor si jàpp naa ko waaye dafa ma ni njaboot doo nga de moo taxoon mais dootu ko defaat mu ne ma de waxul dëgg de yonent ko waaye jàppal ci baat yooyu rek mu waxaat baat yi ñëwaat fekk ko fu muy jëlaat mu ko saway ah, laa fi jàppoon keroog nga ne doo fi jëw waaye wax dëgg yàlla la ma jàppoon la ma jàppaat waaye bii ba c'est la dernière fois bi moom boo ma bàyyi jeex ko mu dem mu dellu ci yonent bi ni ah jàppaat naa ko de mais nee na ma c'est la dernière fois mu ne ma waxul dëgg dina dellusi de décidé waaye jàppal ci baat yooyu ma la wax rek mu dem waxaat baat yi ñëw fekkaat ko fa saa waaye nag tey moom mënul fexe ba bàyyi tey ma ne ko déet dama laa bëgg a jàngal loo xamante ni xam nga man maag sama njaboot yéen jàqal leen rek mooy suñu yittee mu ne ko am jox loo xam ne soo ko xesee wax mucc ci man ak sama njaboot mu ne ko loolu la mu ne ko ayatul kursi moom rek la ñu ragal bo bo waa ji Abu Hurayra bàyyi ko mu dem mu dem ci yonent bi ni ko ah, dëgg yàlla tey jii dafa maa wax loo xam ne mënu ma koon bañ a mu ne ah, ma ne dama lay jàngal loo xam ne di nga mucc ci man ak sama soo ma bàyyee ma ne ko la mu ne ma soo ma ne soo bàyyee mu ah ma ne ko naa la kon mu jox ma ni ma ayatul kursi moom moom rek la ragal moom njabootam yonent bi ni ko loolu rek la mu sa wax ci dëgg la lii moom dëgg la wax nañu jàng ayatul kursi yàlla yàlla musal ci seytaan salaamaaleykum wa rahmatullah